loolu du sama gis nga Macky Sall. Ah. bi ñu ne bi mu nekkee fii ci pouvoir bi daana nettali loo xam ne mille dix neuf bi ñu paree suñu coalition dama ne président Sonko man ak yow fi des ci sunu coalition bi boobu Idrissa Seck dem na ci pouvoir bi ma ne ko Macky Sall ñun ñaar dinañu dibi bu ñu booloo ñun ñaar nii daf ñuy boole dibi. dañu séparé wu ku nekk développé. ma ne ko boo toogee ci réew mi dina la dibi. ma ne ko demal bitim réew. léegi mun naa ko wax parce que passé na jën na pouvoir. ma ne ko demal bitim réew nga def sa thèse. nga dugg dans le secteur privé international nga bàyyi sa parti ñu développé. man de takk naa samay bagages. parce que kii xam naa ko xam boo xam ne boo fi toogee. dina la toroxal ray la. dina la tere dina la tere bokk ci élection yi dina la utal ça n'a moom sax kañ la koy dégg Ousmane Sonko kañ la koy dégg. déglu loolu loolu yoonu kenn nekku ci. léegi waaw damay laaj rek. déglu rek yow du ma am na ñoo xam ne su ma laajee kañ nga ngi dégg nga mere ma. <laughs> attention de. déedéet man maay poser question déglu rek question sur question. c'est pas important. non non man man ñi ma gëj a. déglu rek ma expliqué la c'est pas important dama lay expliqué dama lay expliqué. dama lay expliqué Ousmane Sonko waxtaanaat ngeen. depuis xam nga Ousmane Sonko su ma rakk la xoolal xam nga waxuma premier ministre su ma rakk la. waaw ah, ah. waaw su ma ko nee jeune homme dama la soxla dama ñu fekk sama kër. Bassirou nag dañu ko dégg déglu rek kooku moo gën a nekk sama rak Bassirou amoo problème yooyu non non non bàyyi yooyu dama ne la ñun dañuy wax pour réew mi ma ne ko kii comme bugul dem fasul yéene dem lu ne dina ko def pour yàq réew mais comme moom borom fit la mu bañ jàmmaarloo gis nga coono bi mu ci daj conséquences yi moom la ñuy vivre. waaw mais coono du réer borom. waaw mais attends su ñu amoon temps. tranquillement dans un pays normal où bundu xattaalu nit ñi ñu liggéey ko kon critique yi ngeen di am yëpp du am parce que dina fekk ñu pare pare boo xam ne bii dañuy ñëw rek jubal mu dem léegi comme yàlla def na nii la demee. mais bu jaarul woon ci coono yooyu amaan na tey. peut-être du am euh, suñu borom du ci teg mais ba tey tey léegi nag loolu ne serait-ce pour le respect ci coono boobu ñu daj war ngeen mën a jël jël tuuti recul. waxuñu leen boo leen wax mun ngeen critiquer mais da di critiquer loo xam ne nii si critiquable euh,